mbokk yi asalaamaaleykum benn waxtu mooy door jot sënkam ñu dellu si ci ndimbalu suñu borom ak kattanam am yéenay jukki leen xabaar yi bokk na ci liñ fas yéenee jukki te fas ko yéenee doore xabaar yi tey jii moo di liggéeykat yi nga xamee ne ñoo nekk ca palais de justice ba nekk fële ca Thiès waa SUTSUS nga xam ne ab syndicat lañ bu yëngu ci wàllu yoon ñoo dakkal seenub liggéey tey jii am na sabab daañ ci jokkoo léegi ak kii di Babacar Ndaw ngir defaraat li nga xam ne moo aju ci wàllu tefes gi ak coow li ci jub njiitu réew mi ci conseil des ministres am na ay kaddu yu mu waxoon ne daal looloo tam eh, defes na ci jël ay matuwaay yoo xam ne yu takku lay doon Matar Ba am lu mu ci jokkook El Hadji Malick Ndiaye daan ci dikk léegi ci biir xabaar yi taxawal itam benn tëralin bu yaatu boo xam ne bi dafa jëm ci wàllu eh, defaraat lépp loo xam ne lii daal jëm na ci littoral bi tam moom mooy tefes gi itam ak nees di mën a def itam ba charte yi ci nekk ak bi yëpp itam ci wàllu dëkkiin yi ak taax yi itam loolee ñu daan koy nekk lu jàppandal loolu daan ci dikk léegi gannaaw ba nga ne am na ci kenn kook moom ñu duppee Abdou Sané waxtaan ci ak Habsa Elimane woon ci wàllu fànn boobu la tamit li nga xam ne itam moo aju tey gouvernance foncière ci wàllu suuf si ba tey ndax jamono yi nga xam ne ci la ñu nekk Sénégal gi yëpp wërngal kàpp coowal suuf moom dafa ne gadd gadaaral daan ci dikk lu Abdoul Aziz Sy Diop benn bu adjoint nekk tamit ci forum civil toftal ci incha allah yeneen i xabaar yëgle kay Assane moo ne ci xarala gi. Maodo Faye am ngeen jaajëf ci ànd ngeen ànd ak Sud FM eh, ci njolloor gi fi na toll ni tembe ab dakkal mbaa taxaw liggéey boo xam ne bii li nekk ci wàllu yoon ñoo ko amal ci palais de justice ba nekk fële ca Thiès am na sabab Babacar Ndaw lu sabab loolu euh, Asmoro wax nga ko li ko sabab moom mooy ay dige wala sax ay maanaam daal matuwaay yoo xam ne wala Euh, ay engagement yu nguur gi jël ba pare te ko daal euh, sàmmonteeg moo tax nag tey liggéeykatu euh, wàllu ko yoon ne tey wàllu mbas mi moom daanaka jàpp nañ ne ñetti weer yi ñu defoon ngir gunge seen réew bu Sénégal rawatina gouvernement bi moom jeex na mais liggéey bi tàmbali na waaye li nga xam ne seen ak seen yelleef la maître Malick Sall di seen ministre def si deful benn ko jéego ñoom nag nee nañu moo tax bureau exécutif national bu SYTJUST rawatina section bu jii ñu dankal sànq jotee daanaka fukki waxtu ak benn euh, lu euh, toll si benn waxtu naan sax tàmbaliwaat nañ liggéey ginnaaw ba waaye nag nee loolu avertissement la jël seen kàddu ñu wax ko askan bu Sénégal rawatina opinion publique nationale ak internationale ñooñu ko maître bu Aya Diop fii ci Thiès nag jàpp nañ ne euh, attaque lu toog ñu ngi for ministre de la justice bu bees waaye du benn jéego boo xam ne def na ko daal ngir appliquer li nga xamante ne tey jii moom mooy lépp lu yees jëm seen wàllu rawatina ay questions statutaires nee nañu looloo tax na ñu ni avertissement bi ak tekkaaral bi moom dafa tabale di ëpp ba tax na nag tey jii danañ fas yéene delloo buum sa boy boy nee nañu jox nañu ndigal seen bureau exécutif national lépp lu leen yoon may ci wàllub syndicat ak wàllub ak ak yelleef liggéeykat dañ ko jël ba mu mat sëkk jàkkaarloog gouvernement bi tey jii ñu jox leen li nga xamante ne moom mooy seen ak seen yelleef laata sax ñuy jeexal seen point de presse nemmeeku na ne gàllankoor bi tàmbaloon am ci liggéey bi. ak mbooloo bu takk la ñu nemmeeku fi nga xamante ne moom mooy euh, hôtel de euh, palais de justice bu Thiès muy ci tribunal d' instance ak tribunal bu grande instance. Babacar Ndaw Thiès pour Sud ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax ci coowal suuf li nga xam ne fi ñu toll nii jërawatinaak li fii teg ci wàllu tefes gi te ñu duppee ko bi njiit réew sax ci conseil des ministres bi yëkkati na ci ay kàddu nag fagaru ak tam charte ci war a taxawal ci wàllu hmm, taxawaay yi wàllu dëkkin yi lépp nekk loo xam ne daal lu ñu war a gën a jàppandal la ba joyante war cee mën a am gannaaw loolu sax kii di Matar Ba ne njiit bi ci bi ngir aar wàllu tefes géeg géej géeg dëkkuwaay yoo xam ni daanaka xëy na lii tubaab bi duppee anarchie wala boog ay tooxi doona mën na ko indi ci dundu nit ñi Matar Ba jokkoo ci ak El Hadj Malick Ndiaye li wax rek ne gagné nañu yéen comme yéen a ngi suivre nit ñi li ñuy def ak yëpp xam ngeen bu baax ne ñun doon proposé loolu proposé nañu huit mesures depuis présidentielle bi dialogue national bi pour wax ne dañuy jël lu simple huit mesures pour sauver littoral bi parce que littoral bi fi mu egsi c'est presque irréversible na dayoo ba def dara duñu am moyen politique ay proposition ci benn ci proposition yi évidemment ci ci njëkk mooy politique nationale d'urbani d'architecture d'urbanisme et d'aménagement du littoral c'est-à-dire que war nga xam yow foo mënti nekk lële fële lii moo fii nekk que 30 pour cent yi espace vert lay nekk que 30 ay espace culturel lay nekk ay di ak lii ñun loolu la ñu donc bu gouvernement bi proposé d'abord dégg nañu kontaan di tàccu di di président bi di ko di ko responsable yow mi nga xam ne yaa ngi may xool defe ne man mi maa war a régler sa problème pour que sa doo mën a noyyi man Moctar mi euh, ñi ngi xool ñi ngi yore seen kurus di wax ah nii nii di julli di julli mais julli bi mi ngi jëkke ci nga aar sa environnement nga dim nga nga protéger ko boo ko protéger ban diine nga nekk ba pare nag gouvernement bi nga xam ne moom moo ñu war aar moom la teg ci kaw pour mu administrer ñu régler suñu problème jël suñu yokk ci liñ ci yokk def ay proposition mu gën a baax xel ñu jële ko fu nekk parce que bi ñu wax consensus ñun dañu ne attends du affaire accord entre appareil politique de dañu ne consensus bi mooy mën nañu bañ a déggoo ci pétrole ñu koy gérer mën nañu bañ a déggoo ci leneen ak leneen ci gouvernance bi ci lii wala lii loolu yëpp ku nekk nga xalaatee waa ne air bi nga xam ne ngelaw bi ñuy respirer pour nekk pour pour nga xam ne du ñu feebar ngelaw bi nga xam ne fa muy dafa war a jógee fenn muy muy géej gi ak littoral bi ngelaw boobu foo jaar ñu déggoo ci déggoo boobu nag du déggoo nii nii nii lii laa wax ne bi mooy ñun ñëpp ñu gis ne lii dañ ko war a jeex na te li a jëkk mooy léegi dootuñu fi tabax loo xam ne du intérêt askan wi moo tax ñetti proposition yi ci li ñu def mooy état d'urgence bi ñu defoon ci Covid bi état d'urgence littoral lañu la ñu suivre parce que day permettre nga jël décision yu rapide yu jël ay matuwaay yoo xam ne tam yu jàppandal lay doon yu gaaw itam euh, fexe itam ba loolu ñu ko waxee ci wàllu littoral bi euh, jël ci taxawaay yoo xam ni dañ koy gën a joyantiyaat itam gën ko jox gëddaam itam euh, fii nu toll nii tamit doxal itam charte ya code bi nga xam ne dafa jëm ci wàllu dëkkuwaay urbanisme wala boog habitat dëkk yi néeg yëpp ci mën a doon Abdou Sané mi nga xam ne moo jiite mbootaay gi nga xam ne ñoom dañuy fekk lépp loo xam ne jëm na ci wàllu li mën a indi tuuxi muy catastrophe loolu moom da tey tamit ñoom ñu jàpp ne mbir mi lii lu jaaru la ngir joyanti gi daal di am am na kàddu yu mu dénk ab sa élément woon. waaw boo ko déggee. day mel ni wax ju bees wax ji rafet na. parce que moom lu mu wax noonu. mooy loo xam ne moom la waroon def. mooy lan littoral dafa nekk opportunité pour un pays côtier donc code construction bu ñu wax noonu am. code d'urbanisme bu muy wax noonu am na mais wane carrément ni vision littoral fay atu war nañ ci dolli code forestier code de l'environnement code minier code de la pêche war nañ ci dolli le code de l'assainissement donc dafa bëri ay loi yu bëri yoo xam ne yooyu nga war a jël de façon générale dañuy wax ne lu mu mën a nekk mais bu fekkente ne démb rek la ko wax ci conseil des ministres ci ki nga xam ne depuis deux mille douze moo fi nekk te bala deux mille douze am na lu mu yéenewoon ci littoral bi defe naa wax jooju dafa mel ni wax boo xam ne dafa bëgg lëndëmal actualité bi pour mu am perspective ñoo war a am moom ci moo jël décret ba mu lëkkee ay zones yoo xam ne dañu nekkoon ay zone classée zone classée mooy zone boo xam ne président kese moo mën a c'est quatre-vingts pour cent du tissu industriel moo exposé c'est à ñoo exposé parce que l'essentiel du Sénégal utile ñu ngi nekk à l'ouest du ligne Podor boobu mooy la zone côtière lu ñu war a sàmm la lu ñu war a gérer la yorinu suuf si ay jafe-jafe képp la ci biir Sénégal jafe-jafe yu tar yoo xam ne yàgg na fi lool itam te loolu dafa war a tax nag texte yi maanaam li ko li ko li ko wër ndomba séq ko tënk ko dañ ko war a daal di doxal bu dee waa forom civil wax nañu ne jot na sëkk nag état bi daal di doxal nag li nga xam ne moom mooy li nga xam ne moom la ñu duppee doxalin wu sell te rafet ci wàllu suuf si ndax dafa jot Abdou Aziz Diop kenn la ci coordonnateur yu forum civil adjoint ñu daal di koy mu jokkoo ci élagement la ñu déglu. waaw xam nañu koy jàngate maanaam du lu bees xam nga président moom wax na waxati mais bi du du du ngir wax man dafa wax ni ñi war a lijjanti waruñoo lëj malheureusement Sénégal ñi ko war a lijjanti ñoo ko lëjal mbiru suuf bii ngay dégg tey war a appliquer texte yi ñi nga xam ni tey ñoo nekk fañ koy dogal parce que par exemple tey soo xoolee dans le cas texte yëpp baax na mais un maire il préside la commission domaniale soo xoolee ni niveau des collectivités maire warul suuf c'est le receveur des impôts domaine mooy rapporteur bi moo war a notifier mais dañuy gis combien de maires yi gis pratiquement ñuy délivrer mooy Sénégal dañ am chance réew mu stable musuñu gis guerre civile musuñu xam ay conflit affaire tribalisme yooyu ay affaire xeet ak waasoon mais suñu moytuwul mbiru suuf bi mën na fi indi conflit yi kenn xamul fan lay jëm moo tax tey lu tëri bi wax ji jaru ko ci tey loi bi ñu am dafa nekk loi boo xam ne dafa màgg trop 64 ba léegi tey yàgg na ñu ngi ci cinquante 56 ans donc mu taxawaloon benn commission national de réforme foncière professeur Souran jiite ko ànd ak professeur Abdoulaye Di ak ñu xereñ ñu def liggéey bu am solo donte liggéey doomu aadama du mat mais tey mooy je pense que li ëppoon solo mooy commission boobu conclusion yi ñu fexe ba gën ko gën a contextualiser par rapport au contexte nouveau xool li ñu ci war a jiyanti ñu fexe ba am beneen loi bu bees et puis ñu war a bañ a aju rek ci volonté politique dama ko fàtte ci tubaab xam nga volonté politique na trop mais volonté politique lu mu mën am il faut mu ci xalaatu borom xam il faut mu tegu ci bëgg-bëggu population yi te loolu nag mooy problème bi fi mu toll benn élite groupe bu ndaw ñoo bëgg def li ñu naan des terres gis nañ ko ci littoral bi mais gis nañ ko dem ci gox goxaan yi agro business bi tey gis nañ ñoo xam ne tey combien d'hectares lañ yore gis nañ entreprise minière yi tamit tey par exemple zone région de Thiès bi lañ wax te kenn mënu wax tey dans la zone des Niayes li nga xam ne tey ñu ngi ko impacté agriculture bi ñu ngi koy joxe à tout bout de champ fexe ba nit yi baax na yi fi jot am ay code de l'urbanisme yëpp test nañ ko appliqué amaat loi bu bees boo xam dafay méngóog décentralisation bi ñu ko ñu koy wax. ñoo ko euh, ñoo ko jo ñoo ko déggandoo kooku di Abdoul Aziz Diop njàng mi maanaam ak dooraatam waa jëwriñ waa kër jëwriñ yu ñu dénk wàllu njàng mi ñu ngi koy càmbara ko xool ngir xoolaat yeneen gàpp yoo xam ne daañu ci mën a dooraat mbayaan itam fukki fan yàlla ak ñeent yoo xam ne dañuy xool ñi nga xam ne xëy na doomu jàngoro bi xëy na rot na ci ñoom wala dañ dañ na ci ñoom ak yu demee noonu li nee ñu bu bu ñu jàppaatee beneen gàppit donte ñu ngi ciy waxtaan daañu jël ay matuwaay ba ci jumtukaay yëpp war a mën a nekk lu jàppandal Mouhamadou Moustapha Diagne mi nga xam ne moom moo di euh, directeur bi jiite lépp loo xam ne dañu ci wàllu formation waaye itam euh, ak itam rek yore kaddu ñooñ ci ministère bi ñu dénk wàllu njàng mi am ay kaddu yu mu ci rotal ñu déglu ko. période transition bi euh, ministre Mamadou Talla dafa wax inspecteur d'académie yëpp nañ ko yónnee données yi maanaam xam nga am na matériel boo xam ne déposé nañ ko ci école Sénégal yi ñu xool am na nag wax ni am na lu ñu jot doyul wala jotuñu. donc nañ ko defal nañ ko pointé pointeel euh, matériel bi su ko defee euh, ñu apporter correction yi maanaam fu amul matériel ñu bu ko fa bu fekkente bi aussi am na lu manqué ñu ñu matal ko loolu ñu ngi ñu ngi ciy liggéey bi ci tegu euh, comité interministériel bi nga xamante ni bi les fukki ministère ak ñeent ñoo ko composé ñu ngi liggéey pour jàppaat date maanaam bi bisub lu gudde incha allah balaa yàgg daañu jàpp date bi daañu ko proposer chef de l'État pour mën koo valider ñu reprendre cours yi euh, jamono yi aussi jàngalekat yi nga xam ne dañoo jugee Dakar jëm feneen wala jugee feneen jëm jëm Dakar wala wala feneen ak feneen ci région yi bon jàngalekat yooyu buy toogee quatorze jours daañu xam euh, kan moo ci am feebar bi ak kan moo ci amul feebar donc période de transition bi yooyu ñetti éléments yooyu fondamentalement moom lañ ñi moom lañ ci moom lañ moom lañ ci teewlu incha allah ñu jàpp ne balaa yàgg rek ataa euh, pour le euh, téeméeri nit ak fukk ak juróom-ñeent euh, yoo xam ne yii daal ñu yees ñooñ wopp ji dal na leen tey ji fukki fan ak benn ci weeru juin fii ci biir Sénégal fukki ak juróom-ñaar ñi ngi jóge ci wàllante bi toxal doomu jàngoro bi lool yi fukki yi ak juróom-ñaar a def fii ci biir Ndakaaru Touba Kaolack ak fële nga xam ne tam moo di Richard Toll am na nag ñaar ñaar fukki nit yoo xam ne seen mbir fi mu toll nii tar na lool am na daal ay junni ak juróom-ñaari téeméer ak juróom-ñeent yoo xam ne ñoom ñi ngi xool seenu yaram lépp rek bu nu ko xaymaa ñeenti junni juróom-ñaari téeméer ak juróom ñeent moo fi amandi ci biir réew mi Marie Xomos Xames euh, sa Ngom Ndiaye daal di indi ay leeral ci fànn boobu ñu teewlu. alxames fukki fan ak benn ci weeru juin jot nañu résultat yi ci mbas mi ñu wax Covid fii ci Sénégal ci junni ak téeméer ak juróom-benn fukk ak ñeent. test yi nga xamante ne def nañ ko téeméer ak fukk juróom-ñeent dellu si nañu ànd ak doomu jàngoro ji ci yooyu téeméer ak ñaar ñoom ñoo xam ne cas contact la moom la suñ bëri bu liggéeykaay yi di topp te di ko saytu am na ci fukk juróom-ñaar yoo xam ne cas communautaire la ñoom nag ñu ngi leen di topp tey ci diwaan yi plateau am na ñaar maris am na benn golfe sud am na benn wàkkinaan am na benn aan am na benn jamñaajo am na benn Grand Yoff am na ñaar Parcelles Assainies am na benn Xaar Yàlla am na benn Fass Mbao am na benn Anne am na benn HLM Nimzat am na benn yooyu nag fii ci Ndakaaru kawlak am na benn Richard Toll am na benn Touba am na benn jël nañu tey euh, téeméer ak juróom-ñeenti malade yoo xam ne bi ñu leen saytoo seen euh, yaram gisatuñ ci doomu jàngoro ji Covid 19 ñoom wër nañu am nañu nag ñaar fukki cas grave yoo xam ne ñu ngi ba léegi si suñu bërëb bi suwe euh, sawetaas yi ñeneen ñi nga xamante ne ñu ngi tëdd hôpital ñu ngi ànd ak tal ba mbas mi dalee ba léegi ñu ngi toll ci ñeenti junni ak juróom-ñaar ak juróom ak juróom ci nit ñi nga xamante ne ànd nañu ak doomu jàngoro ji moom lañuy wax cas ci yooyu am na ñaari junni ak juróom téeméer ak juróom-ñeent fukk ak ñeent ñi nga xamante ne amatuñu doomu jàngoro ji juróom fukk ak juróom làkk nañu génn nañu àddina ñi nga xamante ne tey ñoo des ñu leen di faj ci lalu hôpital yi ñu ngi tollu si junni ak juróom-ñaar téeméer ak juróom-ñeent ministère de la santé et de l'action sociale mu ngi dellooti di ñaax askan wi ñu topp tegtal yi nga xamante ne bu ñu ko defee si suñu biir mbas mi ñuy wax Covid 19 dina génn Sénégal ñu ngi leen di gërëm di leen di sant wasalaam. Euh, ci wàllu dem beek dikk bi te loolu Covid bee ko indi ca Pikine gaar gaar bii nga xam ne moom la duppee bu maraîcher wax nañu ne ña fay nekk ñëpp di way tukki yi ñu ngi wekk maanaam ñu ngi wekk mooy ñu ngi ñu ngi ñu ngi euh, euh, ànd ak itam digal yi nga xam daal jox nañ leen ko ci manifeste bi bind bi lépp ngiy jaar ci yoon fii nu toll nii police itam ma nga fa di def liggéeyam ngir taxawu loolu Khalifa géey kenn la ci kilifa nekk ci garage boobu la am na lum ci dénk Aïssatou Guèye Ba. waaw bu baax ah, parce manifester euh, mesure barrière yi boo ko boo ko matlewul doo dugg de un soo ñëwee solo masque police dina la jàpp yóbbu ci poste ba de deux boo ñëwee police moo yor technoflash yi moom moo lay flashé bon lavage yi aussi doo jéggi bunt bi te raxasoo say loxo defoo yëpp donc boo ñu naree indil problème police jël la yóbbu ndax port de masque moom pour ñun c'est obligatoire doo dugg ci garage bi te solo donc boo ñëwee nag ci lañ lay mën a bàyyi nga dugg soo duggee nag ci ngay ñëw ci say kay bi nga war a demee boo ñëwee di nga fa fekk coxeur di nga fa fekk régulateur. dinañ gis aussi que ne manifeste yi am na loo xam ne nit ñi xamuñ ko woon moo doon indi tuuti lenteur mais yàlla baax na bi nga xamee ne ñun dañ ko maîtriser ndax atu ébola bi fi signalé woon. boobu la ñun la ñu commencé woon di def ay manifest ci oto ya jëm Guinée Linkiring Diaobé et autres bon foofu moom maîtriser woon nañ ko suñu régulateurs yi donc amul ci benn problème. Euh, euh, bi maanaam tawat ji rek mënees na koo duppee noonu tawat ji euh, daanaka day moom ba léegi rek li aju ci secteur yenn yi itam am nañ ci ay jafe-jafe ci yenn xew-xew yi faral di am ak yu demee noonu le daanaka xew-xew yi daan am ak xumbeen yi amatul benn boo xam ne bi ñetti weer yàllaa ngi nii yoo xam ni am na daal daanaka boo seetloo daal. yu ci bëree bëri daal dafa taxaw daal maanaam ne mënees na koo duppee noonu li ko sabab nag du dara lu dul Covid 19 bi Adja Fatou Bari. wàllu événementiel di yëg bu baax a baax njeexitalu coronavirus bi. tey soo jëlee màggal bu mel ni màggalu Kazu Rajab nga jël appelu Laayeen bi nga jël Popenguine bi. premier mai koor gi mais ñun loolu mënuñu ko évaluer xaalis bu bari la. Gana Diop di ci yëngu li toll ci juróom-ñaari at ci ren mu jiite lu toll ci fukk ci ay ndaw yoo xam ne moom la ñuy liggéeyal fi mu toll nii li ñuy def rek moo daal di toog di xool di dundee yaakaar euh, ci butikam ba nekk ca Pikine lii di chaise bâche wala sax matériel de sonorisation lépp mu ngi daal di fees dell ki pënd di wane rek ne yàgg nañ leen fi teg te kenn génnewu leen terewul moom mi nga xam ne moo di Gana Diop mi ngi ñëwaat ci seen i jafe-jafe. mars ba léegi ñu ngi toog ubbiwuñu suñu place yi yaakaar naa fii soo seetloo pour cher soo xefee sax maa ngi yow daañu soj li waral nag jafe-jafe gi yëpp mi ngi jóge ci ne lii di commande amatuñ ko ndaxte lépp loo xamte ne daje la kilifa yi dañ ko fi tere woon lépp rek ngir mën a xeex ak wal bi nga xamte ne mbas mi mi ngi ko doon wal ci réew mi. amatul benn manifestation boo xamante ni am na. parce que ñun suñuy li ñuy def dafay dépendre ci activité yi nga xamante ni nit ñi ñu koy def moo xam réception la moo xam anniversaire la moo xam séminaire la. ñetti weer ci tey gannaaw ba nga xamante ne ñi ngi dund yile jafe-jafe waaye nag fi mu toll nii gis nañ ne seeni koppar wàññeeku na bu baax a baax yamuñu ci ndaxte salaire yi sax fi mu toll nii seeni ay employé jotatuñ ci. compliqué na métti na trop parce que am na ci ñoo xamante ne ay boroomi kër lañu ay responsable lañ te ci loolu lañ doon yaakaar léegi dañuy xëy toog loolu lépp ay perte la yoo xamante ni tey ñun li ñu xayma sax mu ngi tourné au environ de deux milliards mais ñun dañ naan sax est-ce que ëpp ko. mu jiite union nationale bi nga xam ne mooy jiital ñëpp ñoo xam ne dañuy yëngu ci wàllu événementiel te ñu toll ci fi mu toll nii téeméer ak juróom fukk ci ay doomu aadama Gana Diop ak xaritam yi ñu ngi dundee yaakaar ne balaa yàgg seeni jafe-jafe dina daal di soppeeku ngir nag ñu war a delluwaat ci seen liggéey ni mu waree. li aju eh, tamit ci point de presse boo xam ne bii tey jii ki nga xam ne moo jiite mbootaay gi yore woon lépp loo xam ni moom la ñu duppee force Covid 19 bi ak itam daal cëddale meek doon eh, liggéey bi ci amoon ngir xeex koog yu demee noonu yëpp itam ñi ngi jënloog taskatu xabaar yi tomb yu bare bari ci ay laaj jóg na fa rawatina ak wàllu perjum yi Babacar Samb fu gaa yi toll. voilà El Hadj Maodo Faye euh, comme ni nga ko waxee rek lu jëm ci euh, point de presse daanaka nag euh, daal dinañ koy ndar Euh, luñ ci jota nag nemeeku ci ay ponk bokk na ci euh, lu jëm ci wàllum bilan bi ci wàllu wàllum chiffre mën nañ jàpp ni lu tollox soixante neuf milliards si suñu koppar daanaka moom lañ daal di génn ngir nag mën a euh, séddale li nga xamante ni moo di dund bi ci Sénégal gi lépp ci loole buñ sukkandikoo ci ki nga xamante ni moom mooy njiital comité de pilotage bu force Covid 19 bi daanaka nag lu tollox juróom-ñaari diwaan Euh, daanaka daal di nañ koy daal di nañ fay euh, dem euh, lii di comité de pilotage bi daal di na fay yóbbu li nga xamante ne nag moom mooy lii di dund bi li jëm nag ci yooyu les visites dinañ ko daal di wéyal ay bés bii ñu daal di dëgmal ci ponk yi nga xamante ni daanaka soulevé nañ ko bokk nañ ci li jëm ci péddium yi nga xamante ni doon nañ ko rumbanaat ne membre du comité de pilotage porte covid 19 bi dañ koy daal di jot buñ sukkandikoo ci Euh, njiital comité bi nag nee na daal li mel amul mu ngi koy daal di ñaawlu te nee na daal li nga xamante ni moo di benn euh, mise au point daal euh, di nañ koy jébbal li di njiital rédaction bi nga xamante ni moom moo daal di bindal li ni mel te di sàkku ci moom mu daal di jéggulu askan bi ci li nga xamante ni jot na ko pësal ci xibaar bi nga xamante ni daanaka teguwul ci fenn beneen ko ponk ñu daal di koy soulever itam moom mooy jafe-jafe yi ñu daal di nemmeeku ci li nga xamante ni moo di séddale dund bi buñ sukkandikoo ci njiit li daal nee na li nga xamante ne nag moom mooy séddale ko dund googee gaa am na ay euh, jafe-jafe ñu si daal di nemmeeku waaye nag lu jëm ci réussite yi moom moo si daal di ëpp ndaxte li nga xamante ne moo di diwaan yi nga xamante ne moo féete fii ci réewum Sénégal daanaka yu bëree bëri sax lii di à cent pour cent daal di nañ koy séddale li nga xamante ni moo di dund gi jafe-jafe suñ ko gën a nemmeeku bokk na ci euh, diwaanu euh, Ndakaaru ndaxte nag dafa xaw a complexe comme ni mu ko waxee te nee daal aw jàmba aw jàngat ngeen balma daanaka dinañ daal di amal ci li ni mel ba mën see tiire ay leçon ngir nag gën a mun a muccal ayib li nga xamante ni moom mooy euh, seen mission euh, mu di nag séddale li nga xamante ni moo di dund gi mu doon benn pàcc waaye tam bépp euh, ponk bi nga xamante ni njiitu réew mi sàkku na ko ci ñoom ñu daal di amal li nga xamante ni nag moom mooy wéyal lii di porte Covid 19 bi ñu daal di koy defee ci anam yu mu gën a benn numéro vert daanaka nag dina daal di disponible ay bés yi di ñëw wàllum Facebook yi tamit ñoom dinañ ko daal di jëfandikoo ngir nag wàllum transparence bi gën a mën a mucc ayib waaye itam benn numéro WhatsApp euh, dinañ ko daanaka disponible nañ mën nañ wax ni ni mel mu di 77 333 00 75 ngir nag képp koo ni bëgg nga information mu di xibaar ci li ni mel nga daal koy euh, am ci anam yu gën a mucc Euh, jërëjëf Babacar ñi ngi lay jaajëfal bu baax a baax euh, ci euh, kaddu yooyu nga xam ne moo rote ci ñu ñu dénkoon mbir mi te indi ci woon ay leeral ak doon jànloog taskatu xabaar yi ñu xuusandi ci xabaar yi njolloor gi ba léegi rek ci wàllu kii di Lamine Diack mi nga xam ne fii ni toll nii moom mi fi jiite woon rek wàllu athlétisme ci àdduna bi yëpp wërngal kàppu ci soo ba léegi moom ci ñu ngi koy déglu fule ci France ci atem bi gannaaw ba nga xamee ne door nañ ko ci altine ji nga xam ne moom la ñu génn ci wàllu tamit championnat Europe bi ci wàllu football bi Allemagne ak itam yeneen réew yi fu mel Espagne tey jii ñu ngi daal di tàmbali nag ndànk-ndànk jàngatu ci wàllu football bi Josette Kali. ginnaaw ba ñu toogee lu yàgg te footballu ñu Liga mu ngi tàmbaliwaat ni ko Bundesliga defee football bi di dellu si waat ndànk-ndànk mu nekk mbette ci ñi nga xamante ni bëgg nañ ko lool. dañuy rafetlu li nga xam ne FIFA jël na ko ak yenn fédération à savoir espagnole italienne allemande ak anglaise ci li ñuy jëlaatee championnat. an bi ñu commencé waat ko. dañoo namoon affaire seetaan Espagne titre bi xamaguñu fu mu ne nii kan moo ko nar a jël yile supporter ñu ngi xaw am xol gu naqari ndaxte ambiance bi du mel na mu daan mel ndax yi rencontre ñu nar a amal te supporters yi duñ ko teewee. dina am changement ci niveau joueurs yi parce que mun nañ ne supporters yi c'est presque les douzième joueurs donc euh, dina am benn aspect bu mu affecté. donc voilà ñu bëgg a profiter aussi sport bi dinañ ci profiter wu. équipe bu fekkee ne dafa recevoir à domicile. supporter da koy dooleel. donc ñooñ tamit dañ leen xaw a gàllankoor tuuti daal. waaye bu ñu sukkandikoo ci Amadou Diop moom mbetteem dina doon gën a rëy bu dee championnat bu France bi nga xamante ni daf ciy bàyyi xel bu baax a baax mu vrai Paris Saint-Germain moom moo rawoon ci bi parcours bi mais am na loo xam ne desoon na quoi donc man j'aurais préféré comme ñu xaaroon ba yeneen championnat yi ni ñu reprendre ni ñu reprendre par yeneen équipe yi nga xam ne ci bas tableau bi ci mi tableau bi lañ ne dinañ am opportunité gañewaat ay points pour mën a relancer waat ci mbir mi daal donc c'est regret de cœur nag nit moom yenn saa yi def li nga xam ne da foog ne baax na Allemagne def na ko ci weer wi ñu weesu Liga bi Prime League ak Calcio bi dinañu tàmbaliwaat ci weeru juin bi ñu nee Restez chez vous dina gën a neex dina gën a moins ennuyant. Sud FM ganu bés bi. Mokhtar Ba la bokk jotaay ak El Hadj ci wàllu littoral bi maanaam tefes gi ak itam coow li ci jóg kaddu yi njiit réew mi rotal askan wi xeex bi ñu ci fas yéene xeex ngir loolu itam lépp ñu dellu siyaat ko ñu teewlu. voilà man euh, may Mokhtar euh, Ba donc président euh, plateforme pour environnement ak réappropriation littorale président Nouveau Monde voilà. Euh, gis nañ ne démb nag njiit réew mi jël na ay def na annonce yu bëri bokk na ci nag maanaam plan d'aménagement bu littoral loolu naka nga ko jàngatee yow. mais mooy. du ñu wax rek ne gagné nañu yéen comme yéen a ngi suivre nit ñi li ñuy def ak yëpp xam ngeen bu baax ne ñun ñoo doon proposé loolu. proposé nañu huit mesures depuis présidentielle bi dialogue national bi pour wax ne dañuy jël lu simple huit mesures pour sauver littoral bi parce que littoral bi fi mu egsi c'est presque irréversible c'est-à-dire loo xam ne jéggi na dayoo ba nga xam ne kenn mënatu ci dara. gouvernement wu dañuy dem ba nga xam ne mënatuñu ci def dara du ñu am moyen politique sax ne dañuy dindi lii wala dañuy dindi laa. moo tax ñu yóbbu leen ci ci benn ci propositions yi ci ci njëkk mooy politique nationale d'urbanisme d'architecture d'urbanisme et d'aménagement du littoral cest dire que war nga xam yow foo mën nekk lële fële lii moo fi nekk que 30 pour cent yi espace vert lay nekk que 30 pour cent yële ay espace culturel lay nekk ay di ak ñun loolu la ñu donc bu gouvernement bi proposé d'abord dégg nañu kontaan di tàccu di di remercier président bi di ko di ko féliciter ba pare di ko dimbali parce que responsabilité bi ñëpp la il faut que ñu àndandoo nekkatuñu léegi ci benn situation boo ne ñëpp laa ku ci nekk xool a régler a ñu ngi yore seen kurus di wax ah nii nii nii di julli di julli mais julli bi mi ngi jëkk ci nga aar sa environnement nga dim nga nga protéger ko boo ko protéger ban diine nga nekk ba pare nag gouvernement bi nga xam ne moom moo ñu war aar moom moom teg ci kaw pour mu administrer ñu régler suñu problème jël suñu intérêt kooku léegi dégg nañu c'est très bien donc ñu ñëw teg ci liñ ciy teg yokk ci liñ ciy yokk def ay proposition mu gën a baax xel ñu pourtant du affaire accord entre appareil politique de dañu ne consensus bi mooy mën nañu bañ a déggoo ci pétrole ñu koy gérer mën nañu bañ a déggoo ci leneen ak leneen ci gouvernance bi ci lii wala lii loolu yëpp ku nekk ni nga xalaatee waa ne air bi nga xam ne ngelaw bi ñuy respirer pour nekk pour nga xam ne du ñu feebar ngelaw bi nga xam ne fa muy dafa war a jógee fenn muy muy géej gi ak littoral bi ngelaw boobu foo jaar ñu déggoo ci déggoo boobu nag ci li ñu def mooy état d'urgence bi ñu defoon ci Covid bi état d'urgence littoral lañu la ñu suivre parce que day permettre nga jël décision yu rapide première première décision bi mooy benn décret boo xam ne dafay confirmer statut utilité publique ak intérêt général ñu ne tali bi ba géej rien à faire kooku léegi askan wi moom kenn du fi def dara loo xam ne askan wi gisu ci boppam du benn waaye mooy defar immeuble am jaay ay appartement wala dëkk fa wala immeuble ak piscine am déedéet c'est ak géej gi askan wi moom moo ko moom mooy premier décret bi deuxième élément du décret mooy mooy les mesures conservatoires xam nga léegi boo amee hémorragie dañ ko war a taxaw sinon da ngay dee ci loolu la ñu nekk hémorragie bi la ñu jëkk arrêté dañu jëkk a xool fépp foo xam ne laalaguñu ko d'abord ñu teg ci suñu loxo nga xam ne loolu au moins sooy nañ ko troisième bi nag léegi ñu ne li ñu laalagul ñu commencé liggéey ci ay impôts yoo xam ne ki nga xam ne dafay tax doo gis géej gi muy fay ki nga xam ne dafay tax ne ngelaw bi du ñëw ci yow la rafraîchir day nga xam ne ngelaw bi nga xam ne dafa war a jóge ci daf koy baare alors que bu ñëwee euh, ba nga xam ne dootuñu la kooku tamit daf koy fay moom la ñuy wax la taxe de privilège littoral Sénégal dëkk foofu neexaay boobu dañ koy fay. waa mais léegi naan ci biir ci biir nag am na yoo xam ne dañ ko war a dindi naka lañ koy dindee am na ñoo xam ne dañu ne waaye dañ jël peel déedéet du demee noonu destruction créatrice lañ ko tuddee c'est-à-dire képp koo xam ne dañ ko jox benn affaire mu koy bànneexu personnel ak yu mel noonu dañuy remplacer loolu par loo xam ne ñëpp askan wi moo koy nekk loolu nañ koy financer pour génn ci par exemple boo amee sa benn kër kër gi yow yaa ko moom yow yow yaa ciy bànneexu sa richesse la bu ñu ko dindi woon def ci benn restaurant restaurant bi dana am chiffre d'affaires dana am ñu fay liggéey dana am nit ñu fay mën a dem mixité sociale dana bokk ci affaire ñëpp même même touriste bu ñëw xam na ne mën na lekk ci fële et cetera boo jëlee esprit boobu nga dugal ko ci littoral bi yëpp gagné nga donc ñun dañu nekk ci benn plan boo xam ne en cinq ans liggéey dootul manqué ci dëkk bi parce que liggéey bi ñu ngi koy tabaxee sur la destruction créatrice cest à naka la ñuy tabaxee loolu yëpp naka lay dem ba nga xam ne ñëpp ay gis seen bopp ci biir képp muy musicien bi muy waa ji doxantu muy kii paa bi yore kurusam ne dafay dem ñaan yi ñëpp danañu am seen place ci bi mais pas jox ko noonu et cetera donc il a fallu léegi ñu remplacer wax yu bare yi gis ngeen ñëpp ngi ciy dugg di ci ñi ngi téléphoné ah bravo Mokhtar yéen yéen seen ñefe et ñeneen tamit ñi ngi ci ginnaaw bëgguñu feeñ nekkuñu woon ci dara boo leen déggee mu mel ni ñoom ñoo mës def lu nekk et cetera Sénégal la boo moytuwulee yooyu yëpp dafay polluer ñi nga xam ne ñu ngi leen di poser ay question kii moo def li kii moo def gis nañu ñëpp ne leen gis ngeen bu leen yàq liggéey bi ñuy def ci lu mel noonu ñu déggoo bu baax ñu expliquer ñi nga xam dañuy am yenn explication ñuy def ñu def ko clairement nettement mais képp koo xam ne yaa ngi woon ci dara te léegi aujourd'hui nga préparé pour liggéey mais je crois que temps bi loolu la parce que xaalis bi ci nekk bare na benn bare boo xam ne ñu sax imaginer Sénégal rek ngay gis ñu am lu mel ni te duñ ko gis xoolal benn aan bi ma doon wax nga xam ne moo ko Copacabana Brésil ñoo niroo ñoo ñoo yem ñun fii du salté rek de man Mediapart ñëw na fii di ma interroger ci loolu que def ay toilettes dañuy tuur affaire ci biir alors que Copacabana kooku mooy paradis wu Brésil mooy paradis wu àddina bi ku demu foofu am na lu la manqué bu fekkee ne voyageur laaj bi mujj bi rek moom moo jëm ci li nga xam tam wax na ko bokk na ci tamit ñu Euh, bàyyi xel ci euh, li nga xam ne mooy code de l' environnement et de l' urbanisme loolu dam lan nga ciy tontu. mais kooku mooy affaire bu njëkk bi. environnement. bu fekkee ne sa santé est impliquée. jëlal rek ci corniche bi ñu ngi tabax ay ay ay immeubles. dix étages cent étages lu nekk commencé na mais. Malick kenn xalaatul ne ñooñu bu immeuble yi pare ña dëkk ban tali la tali bi déjà mi ngi saturé kenn du xalaat loolu ñoo ni ngi def benn TER parce que TER bi dafay tax ni yow yaa ngi débouché fële ba pare di fermer fële après nga ne dañuy léegi finalement dañu war a def beneen affaire fii pour mun fi jaar doo commencé xool lan ngay def tijji sa bët loolu mooy politique nationale d'aménagement et d'urbanisation war nga xool ne mais ah immeuble nga perte ak même wakkaan ñuy jaaree beneen côté bi ñëpp xam nañu ne di nga am trente minutes boo xam ne da koy perte fekkee ne da am benn rendez-vous huit jaar foofu ah non non nga war a dem wala non si sept moins nga war a dem sinon doo doo agsi sa rendez parce que di nga am trente minutes parce que dañu war a wàcce xale yi di traversé ñu arrêté ñëpp buñ la arrêté fële ci Mermoz ki nekk Ngor xaw na loolu yëpp ñu ngi ko yof nga dëkk woo oh, foofu dafa métti non foofu teelal dem de commencé woon nañ ko à l'époque déjà bi nga xam ne aéroport bi jëleeguñ ko fii ba ñu ne ne attention bu fekkee ngay jël benn avion il faut nga jokk léegi waxtu ci sa temps bi nga daan def pour dem foofu même même compagnie dañ la koy wax ne lañ bokkatul de sinon da ngay perte sa avion loolu dañ koy gis xam ko nit ñi di ko wax ñuy toppatoo leneen politiciens di wax fee ñu di wax fee citoyen bi moom xamul ci dara moom muy def mu yore avancé defe loolu moom mooy kii bi ba benn bés affaire loolu moom mooy situation bi donc code de l'environnement mooy caabi Ba ñu ngi lay sant di la gërëm bu baax a baax. merci Malick. Maodo Faye. jërë ngeen jëf mbokk yi jërëjëf Assane Thioune ñeent fukki minutes ak euh, juróom-benn moo feggu ci benn waxtu mbokk yi ñu ngi leen di jaajëfal foofu la xabaar yi bu rëy ñu ngi leen di ñaanal jàmm.